jafe yu bari yi nga xam ne dafay eh, fësal lompoñ gi nga xam ne noonu la ñu yoree secteuru napp gi loolu loolee waral ba institut universitaire de pêche et d'aquaculture amal bi la tàggatu ngir ñu gën a ñoŋal anam bi nga xamee noonu la nappee. ni ñu yoree wàllu napp bi maanaam ni ñu koy gérer moo méngoowul ak réalité bi moo tax nag ñu war a xoolaat suñu euh, gestion ñu war a xool naka lañ koy defee. Euh, moo tax FAO xalaat ne war nañ tàggat ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu napp bi ci Afrique mu xalaat ne war leen jox yeneen jumtuwaay yoo xam ne day méngoo ak suñu réalité. damay naan dina bokk ci safara yi parce que moom kese mënu ko nekk mais def ciy bokk euh, te am nañ ci yaakaar bu baax a baax. bile loolu nag dinañu ko amal ci ayu bés ñoom nag bu ñu noppee li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu dem jàngale ñoom itam. anam yi nga xam ne noonu la ñuy nappee ci université yi nekk ci dendu Afrique wala sax ñu amal ay tàggatu ci nu ñuy amalee yorin bu sell jëm ci wàllu napp gi. donc on s'attend à ce qu'ils fassent une restitution donc ils vont déjà faire une mise en situation euh, la semaine li ñuy xaar ci ñoom mooy bulal bi noppee lépp loo xam ne jàng nañ ko fi ñu ko wasaare seeni réew. situé euh, donc en euh, lu toll ci fanweeri enseignants chercheurs ak ñu seen xel màcc ci wàll wi jóge ci lu toll ci fukki réew ak ñett bokk na ci Sénégal Maroc Bénin Côte d'Ivoire ak yeneen ñoo bokk ci bile ndaje ndaje bi nag dina may ñoom participants yooyu ñu liggéey ci ay références ngir gën a mën a ñoŋal lii di wàllu napp gi.